papaam topp ci mu nekk nag naqar boo xamante ne rek moom woykat bi nag jot na ko dund moom ay décembre nag la mu daal di xam ne lenn rek la rëccu ci àdduna mooy li mu yóbbul yaayam nag màkkata mu nekkoon rêvam bu gën a ci rêve yi bu ñu jugee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci ki nga xamante ne moom mooy Zeyna Ndour nga xamante ne daal dinañ koy gisaat ginnaaw mariage bu luxe bi nga xamante ne rek def nañ ko ci biir réew mi daal dinañ koy gis nag moom ak jëkkëram ji nag ci compte Sinabam moom doomu Viviane bi nag jot na partage ay photo yoo xamante ne rek gis nañ ko ca muy wane na nag moom ci jëmi boppam jëkkëram jii da ko daal di jox ab billet nag ngir ñu amal seen umra foofa ca makkatal mu karamati ñu daal di gis nag yooyu le images ki nga xamante ne rek moom mooy Eudex Yao nag bu ñu fa jógee ko ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté moom star ivoirienne bi nag daal nañu koy gis rek ci li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi nag muy daal di rek feccaat wéy bi nga xamante ne kii di Bass Thioung moom moo ko daal di wéy ñu daal di ko cay gis nag ak forme bu yànji lool nag ba tey rek ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu wax ci Mia Guissé mi nga xamante ne rek daal dinay amal ab conférence de presse ni ki démb ci talaata ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet ci atum ci restaurant bu nekk ca place moom nag ñu ne daal ba ngay waajal ab concert boo xamante ne rek niki 7 niki 7 septembre nag la ko bëgg amal fi nga xamante ne rek moom mooy ca diwaan bu Casino ca France eh, ne rek moom mooy Mia Guissé nag mu ngi jaajëfal bu baax nag patron Subatel musique ak sénégalais yi ci jàppale bi nga xamante ne rek ñu ngi ko koy eh, jàppale moom Mia nag ne na ni ki sept septembre bi ñuy dotmal tëgg fi nga xamante ne moom mooy ca Casino ca Paris nekk ci diwaan bu France ci salle bi nga xamante ne rek salle mythique la bi nga xamante ne rek lay daal di jël moom nag ne na daal mu ci namm du lenn rek lu dul wane nag boo xamante ne rek dinañ gis kii di gise Guissé yan facette rek la daal di am ak yan talent la daal di am ci face à face bi nga xamante ne rek doon na ko amal ak presse bi nit ki démb yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet ci atum 2024 moom nag daal dinay ñëwaat rek wax ci album bi ñu dippee éclosion mu nekk nag premier album boo xamante ne rek daal dinay am fukki titre ak ñett moom woykat bi nag daal dinay tontu rek ci ñenn ñi nga xamante ne daal ñu ngi koy critiquer ci yére yi nga xamante ne mi koy faral di sopp moom nag la mu daal di gis rek way bi ak li nga xamante ne rek moom mooy aar bi nag lépp lu mu laaj rek dañ koy def mu nekk tontu boo xamante ne rek jot na ko tontu nag suñu mbokku internet yi ba tey nag bu ñu jógee foofu dañuy addu rek wax ci arrestation bi nga xamante ne daal dinañ koy def kii di Ahmed Suzanne Camara mi nga xamante ne rek daal dinañ koy teg loxo ginnaaw nag bi mu doon génn di wax ay kaddu yu doy waar rek jëmale ko ci élimaanu jawriñ bu njëkk bi di Ousmane Sonko ak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye kii di Amath Suzanne Camara nag daal dinañu koy teg loxo nag ñi ko teg loxo du neen rek lu dul ndawal commissariat ci ordre procureur de la république ba tey rek ci wàllum xabaar bu ñu jógee foofu dañuy àddu rek wax ci njiital réew mi Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ne rek jógee ko na jii ci diwaan bu Dakar nag di wóotale diwaan bu Paris ginnaaw invitation bi nga xamante ne rek naataangoom français bi di président Emmanuel Macron daal dina koy invité nag nga xamante ne rek moom mooy président de la république di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag bokk rek ci li nga xamante ne rek moom mooy ñeel nag boobulee comité international olympique nga xamantene rek fasina nañ ko amal nak ki ñaar fukki fan ak juroom ci wéru sulet ci atum 2024 waye nak dina téwé rek cérémonie officielle d'ouverture jeux olympiques yi nga xamantene dinañ ko amal ki aljuma yemo moko ñaar fukki fan ak juroom benn ci wéru sulet ci atum 2024 bilé ba tay rek ci walum xibaar bu ñu joggé fofu dañuy addu rek wax ci au commissariat des nations unies bi nga xamantene moy xex ak ak yellefu doomu adama nak ñom collectif bi ñu ngay sakku rek ñu daldi ubbi ab enquête ci ñaawte fi nga xamantene amon nañ fi ci diirub 2021 2020 jàpp 2024 ci nguurug Macky Sall ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo boot nag ci njaboot yi nga xamante dañoo daal di ñàkk ak yàqule rek ci mbir mi nag daal di nañuy saisir ci talaata ji nag kii di président Afrique de l'Ouest ngir waxtaan ak moom foofa ca centre au commissariat des Nations Unies muy xeex ak ak yellefu doomu aadama ne nañ daal nañu indi ay leeral ci nu mu gën a gaawee ubbi ay enquête ci jëf ji nga xamante ne xewoon na fi ci nguurug Macky Sall ginnaaw bu ñu gisee rek ñu bëri ci askan wi nag sonnoon nañ ci lool rawatina ñu nekk ci biir réew ak ñu nekk nag nekk ci bitim réew mbir mu nu mel lañu daal di xamal kii di Boubacar Seye ak ay àndandooram ginnaaw représentant bi nag la mu daal di xam ne moo di nag nguuru ko Macky Sall lu toll ci juróom fukki doomi aad juróom ñett fukki doomi aadama daal di nañ ci ñàkk seen bakkan ñu ci des nag dugg gaal gi ñu ci des nag daal di ciy ñàkk seen bakkan nag ci ndox mi nañu indi ay daan yoo xamante ne rek dinañu ko topp ci fi nekkoon président de la république di Macky Sall ci mbir mu nu nag ñoom collectif bi daal ña ngay sàkku rek ci système bi nga xamante ne rek ñu ngi leen di néewal doole ak xoqatal nag ak def li nga xamante ne rek moom mooy mbugal ku wax ñu jàpp tëj mu nekk actu yu doy waar yoo xamante ne rek nemmeeku woon nañ ko ci nguuru ko Macky Sall nag bu ñu sukkandikoo ci article 7 bu Rome créant bu code pénal la ñuy sàkku rek nag ñu daal di topp kii di Macky Sall mi fi nekkoon nag njiital président de la république ba tey ba ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci gestion fonds Covid yi kii di soxna Aminata Touré nag dinañu ko xaar ni ki suba rek foofa ca kanamu tribunal mu nekk audience boo xamante ne rek moo dox ci procès Mansour Faye ak Aminata Touré yëfi nag dinañu ko amal ni ki suba ci alxames yem ak ñaar fa fan ak juróom ci weeru sulet ci atum 2024 mu nekk nag kaddu yoo xamante ne rek ñu ko fësal ay jegeñaali ex premier ministre bi woon ci ab note ginnaaw bu ñu nuyoo nag ba noppi ñoom nag ña ngay daal di xam ne rek nit ki ëllëg yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet ci atum 2024 foofu ci tribunal bu Ndakaaru ci salle 3 bu 9 jotee nag dossier bi dox ci diggante Aminata Touré ak kii di Mansour Faye dinañ ko fa càmbar mu nekk nag mbir moo xamante ne rek ñoom ñi daal dinañ koy fasal boobu lee note di sakku nag ci képp koo xamante ne rek militant nga wala partisan bokk nak ci coalition Mimi ture nga daal di waajal nag boobulee bés bi nga xamante ne rek moom moo nekk bésu procès bi mbir mu nu mel nag ay militant Mimi Touré ñoom ñoo ko daal di fësal lekk ci boobule communiqué ba tey nag bu ñu jógee ko foofu dañuy àddu rek wutali nag fi nga xamante ne rek moom mooy ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru mbir mu doy waar nag moom moo fa daal di am ki nga xamante rek moom mooy wéy Turo M Seck nekk ab coiffeuse ay atam toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn moom ci jëmmi boppam rek dañ koo daan ñaari weer ñaari at ci kaso yoo xamante ne rek da koy dal di tëdd lañ koy toppee rek mooy daal di filmer ab nit ba noppi rek. rek jël nag li nga xamante ne rek moom mooy ay données personnelles am di ko ci chantage ginnaaw nag bu mu ki nga xamante rek moom ma jox bu toll ci 300000 francs CFA ma changé sama téléphone wala ci mbir mu nu mel bu ñu sukkandikoo ci l'observateur mi joxe boobule xibaar moo di ne nag boobule bu moom moo ca daal di mi nga xamante rek dafa daal tëdd ak xale bu jigéen boobu doon ko laaj 50000 ca njëlbeen nag nee na mu jox ko 20000 francs yeneen 20000 yi mu yónnee ko ko nag par Wave ginnaaw bu ñu demee nag ci kanamu tribunal la mu daal di xam ne lañ koy toppe yëpp moom moo ko daal di def waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy procureur dañoo sàkkoon ñu tëj leen ñetti weeri kaso yoo xamante ne rek dañ leen ci daan nag ab amende waaye nag tribunal bi ci jëmmi boppam dafa daal di gis ne rek comme que dañ ko doon jéem a chantage nag daal nañ ki nga xamante ne moom mooy soxna si di wóor si turu MSEC ñaari at ci yoo xamante ne rek da koy daal di tëdd mu ànd ak nag lii di sursis mu nekk mbeex mu doy waar boo xamante ne rek daal dinay xew foofu ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification ngir mën am am yeneen xibaar